ñëpp xam nañ ni Macky Sall le président Macky Sall ci dictature ci fitna ci njaayum doole ci toroxal jaa gor ci lay dox ci loolu rek lay dox nguuram yëpp l'histoire retiendra que Macky Sall ci fitnaal doomu aadama ci wàcce doomu aadama ci toroxal doomu aadama ba mu ne tott ci néewal doole doomu aadama rek lay dox mais bu ñu nee doomu aadama dañ naan si ay opposant ñim jàpp ni ay opposan am lañ mbirum buur moo ñëwaat ci réew mi buur la lum wax waaw la kàddoom waaw la sant kàddoom ëskay la sant kàddoom ci dox rek dox rek la sant la sant maanaam kenn waru cee am arrière pensée kenn waru cee teg baat bu buur waxee ñu xamal ko ni jamono jooju nag weesu na jamono jooju day jamono ji ñu ne ni ah dëgg soxal nañu ba nga xam ni boo ñu tegoon paaka ci put ñu ñu ñu yuuxu ko dëgg toll nañu foo xam ni paaka ci put sax duñu tere bañ a wax dëgg jooju noonu parce que dañ koy wax parce que dañuy xam ni allah kulli aal ak nu mun a mel dinañ dee muy bu paaka bi wala jaasi bi wala petal bi wala dee gi bu jotee allah kulli aal kenn mënu ko rëcc mais bu jotul lépp loo def du tax waaja dee donc ñu xamal ne Macky Sall lan mënuñu arrière loo lan mënuñu tiitloo rawatina nag nee naa la man duma ragal ku ragalul yàlla man Muhammad duma ragal ku ragalul yàlla sama xol mayeguma loolu kenn kese laa ragal ci kaw suuf mooy ku ragal yàlla képp ku ragal yàlla dama laa ragal man mais ku ragalul yàlla man dama lay affronté ñi mën a affronté Macky ba last line ba yowmal mal ñi mën naa ko affronté amul pexem bu ma ragal amul pexem bu ma tiit lu ñu def Ousmane Tunkara man bokkoon naa ci liste bi man bokkoon naa ci liste bi vendredi woo nañ ma sama téléphone boobu jàppaguñ Ousmane Tunkara xamal ma ni dañoo def benn liste ñi ñu woowee ay activistes fas yéene leen jiiñ terrorisme fas yéene leen jiiñ ne dañuy nasaxal kaaraange réew mi ne dañoo commandité ay crime dañoo commandité ay ay violence et cetera et cetera que man ci laa bokk man Mollah Morgun ñu ne dañuy plainte vendredi laa la wax ma xamal leen ni loolu mbégte la ma xamal leen ni loolu buntu la buntu boo xam ni damay jël waxu Thomas Sankara bi ils ont voulu m'enterrer mais ils avaient oublié que j'étais une graine ils ont voulu m'enterrer mais ils ont oublié que j'étais une graine wallahi bamu ko déggé ba légui sama ko wul may ñaan yalla yalla na am way sama li, li. li ba ma ko déggee ba léegi fi la dëkk 90% fi la di ñaan suñu borom yalla na sotteeg jàmm waay yalla na pexe ba sotti ndax xawma kan de waye man mom yalla dafa def ni man sama kawe sama way sama garaat mang koy amé ci nit bu may jéem fexel ci nit lépp lu ma am ci kaw àdduna man Mollah Morgun maa ngi ko amee ci pexewu nit pexewu nit ci pexe ju bon ju nit di jublu ci man yàlla di xaaj di xaaj xam nga lan moo ma mun a suul may defi mbir ngay def lu baax loolu daf may suul man leer laa goo xam ne lëndëm moo may leeral bu lëndëm amul duma leer man duma tak ci ler leer leer du tak ci biiri leer ma len di wax nak ki ma doon man nit bo xamni la lu lëndëm taxawé rek leer damay damay feñ lu mu mën soulé moy nga leer bo indé leer rek ma sey kenn munuma samay grade maa ngay am ci nit yi jog di ma fexeel ci nit buy jog di ma waxal ci nit buy jog di ma fenal ci nit buy jog di ma sosal yàlla di ma di yëkëti di yëkëti di am da fay daw nit yi ko jëm yëpp dañu ma bàyyi daw parce que plus que ñay def foog ni waa ji dana yaq plus que yalla di ma yëkkati di ma sigil di ma sargal di ma magal motax bu ñuy tiit dañuy tiit sanni ma ñepp ñuma affronter fi ci kawsul dañ ma sanni daw muy ñu doon rap muy ñu doon classe ma fi nek nit bo xamni nit duma classe nit duma classe bala nga classe di nga wiiri junni yoom ak juroom ñaar ñu wa rapper yi xam nañ ak lepp lu may wax do gis rapper bu yëy yàbbi ci man dam nañ ba xamni waji waji please plus que nga koy dugg plus que ngay dugg ci toh ko yàqal plus que ngay torox muy gën di kawe est-ce que loolu yàlla suñu borom moo koy def ay jaamam man ba ma nekk ci sama sama nekkin rek di dox waa man nag dama bokkoon ci liste ba ma leen doon xaar ci jàmm ak salaam di ñaan yàlla waaye mi ngi mel ni maanaam nattu di ñëw ngay xaar naan waaye yàlla na yegg si waay dama doon xëcc nattu bi wallahi la azim dama doon xëcc natt bi pour man ma bokk ci mais à la dernière minute dañu effacer sama tour ci liste bi dañu effacer sama tour ci liste bi affaire bi yéem ma pourquoi ñu effacer sama tour ci liste bi wallahi la azim mooy li ma leen wax bu Macky Sall jógoon ne daf may sosal daf may siggil te dina dinaa ci am loo xam ne dinaa ko indi teg ko ci loxoom ne ko est-ce xam nga ni sos ba nga jot ne danga may sosal ci laa amee lii ak lii ak lii ak lii xanaa xam nga bunt la woon loolu bunt la woon lu lu feeñ feeñ lu ma waroon am lu ndam laa naroon am mais daf xaw ma lu ko Macky Sall moom dafa xam naa am nay sëriñ xaw ma lu ko ko wax xamal ko ni booy dugg ci mbirum waa ji defar ko ba faw defar ko ba faw ci kaw da ngay jóg pour sosal ko pour fenal ko mais danga koy defar wallahi la azim billahi wallahi buntu la woon boo xam dama ci doon defaru Macky Sall di di dossier boobu noonu dama ci doon defaru ba faw dama ci doon defaru am ci loo xam ne aw ma ko jamono ji dama ci doon jaaree am ci lu ne ba am ci ay garde garde corps ay garde yu may garde xaw ma nag lu ko xamal ko ne bàyyi leen kii noo tax ñuy rocc ma ndànk ci seeni liste bàyyi ma mais man mbégte la woon waroon doon ci man ci kaw mooy amul lu may wax di ko ragal ndax benn doomu aadama moo buggul dégg-dégg ji déedéet loolu amul <laughs> man moo la am war gën kañ laa dox ci kaw suuf ba yàlla war ma mun a ab doomu chaque doomu aadama war ko ragal man man war naa ragal doomu aadama man ancien spermatozoïde futur cadavre koo xam ne doxul dara ci mbirum yàlla caaxaankat boo xam ne pouvoir rek la bëgg bakkanam rek la tay la kooku ma war ko ragal man man war naa ragal Macky Sall man war naa ko tiit ak ay pexem du tus du nix du dara du tus du nix du tus du dara du tus man maa ko wax Macky yow doo dara do tous say sos ak say fan ak say katch ak man munul ci man nix dara munu ko ci man boko ko sax sigil ma plan ngeen ko tok ngeen waxtaan ngeen waxtaanee ngeen ma boole won ngeen ma ci liste bi mais dama gis ni Ousmane Tounkara moko mujjé man nak bu wesso ay mbirum sax keuyit bu ñewoon damay denc sama keuyit man <laughs> wallahi la azim seen pexé ko bu ñewoon damay neub sama keuyit billahi dama ko décidé won bo leen indoon lo damay dam wuy ji neub sama keuyit kon ko amul keuyit mel na xolal déporter leen ma <laughs> man ñamay ñamay manam te ñamay roy dañ leen a déporté te ñamay roy man dañ leen a déporté te déportation boobu moo leen may pouvoir boobu xanaa xamoo loolu ay échelon la ci fa fa yàllaahu déportation yi échelon la fa yàllaahu xaw ma nag ñu xamul deporte boo leen ma déporté woon yëkkati ma yëkkati goo xam ni non fa laa jaaree man buntu pale sax man pale damay dugg pale déportation boobu noonu dégg ko ma ne bu ñëwoon damay nëbb samay kayit lépp ne la maa ngi ni clandestin la aw ma dara déporté leen wallahi la azim déportation boobu dafa may yëkkati waaye Cheikh xaadimal Moustapha Cheikh Ahmadou Bamba xaadimal Moustapha lu may dañ ko déporté déportation bu moo ko may li mu yor nii tey jii ñaata at la dëddu àdduna ci saayir xoolal Touba na muy mel ci doomu aadama bàyyi ña sax juddoowul Médina Baye tey boo demee Médina Baye fekk junni doomu aadama dañ ko déporté waaw dañ ko déporté ñi fi màgg yëpp am fi daraja nit yi di leen seen sëtaati sët yi gis nga ñu doon déporté waate seen sëtaati sët yi tey ñoo topp tey sëtaatu sët yi ñu déporté woon. dëggoo wax ji de dama ne ñañu déporté woon seen i maam ña leen déporté woon seen sëtaati sët yee topp ci ñiñ déporté woon seen sëtaati sët yi <laughs> waaw. bañ ma da buñ ma jógoon pour déporter ma wallahi la azim mbégte gu ma ci am à bras ouvert laa leen di laa leen di laa leen di gàttandoo à bras ouvert parce que dama ci doon loo xam ni jamono ji mënu ma ko ci doon gis nga tey déportation man dama ci doon am buntu doon ci lu rëy lu ngand sax ci kaw suuf doon ci lu ngand doon ci ku am doole sax am ci pouvoir di wax ñuy dégg déportation ma xaw ma nan lan la Macky Sall def ba génn ma ci déportation boobu noonu te xam naa ne bu ma nëbbuloon sama kër rek man munu ma déporté man Macky Sall munu ma déporté munu ma déporté du ma clandestin am na ay këyiti këyit du ma sax benn këyit kese ay këyiti këyit laa yor ay këyitu këyitu dëkk yor ay visa wu visa wu dëkk di artist du ma activiste kese de di artiste di rappeur man laal ma mooy laal le monde du hip hop le monde du hip hop partout dans le monde du yow ma ci activiste je rappeur guen ay album am droit ñu protéger ma protection ma nek un rappeur engagé hyper engagé xex ci ay nguri ngour dekk bu ma dem feug fa buntu ñu ne ma bismillah déggoo lu ma la de dama ne man rappeur la un rappeur mo moy kuy wax ka kuy c'est lu len ñi ñi japp sax rappeur yi bu souvent dañ len di c'est lu len lolu amul benn rappeur bu nekk ci kaso bi da ngeen a xamul rek de amul benn rappeur bu nekk ci kaso bi rappeur yi ñu jàpp caat ba ngeen di wax bàyyi nañ ko bu yàgg mu gis naa ngeen def ci photo yi caat bàyyi nañ ko bu yàgg. bañ ko bàyyee du léegi rappeur laa la wax de wax ma la activiste de man je suis un rappeur monde du hip hop dama ci bokk.

dëkk bu ma dem ne man Mollah Morgun dama soxla asile barki alxuraan ñu jox ma asile ba pare yónnee ma garde koor ñu may garder hmm. man dama am droit wax damaa wax avant Macky Sall xeex ci jamonoy Abdou Diouf xeex ci jamonoy Abdoulaye Wade xeex ci jamono ba teg fi Macky Sall man bokk bokkuma ku dém génn démb ak bërki démb di commencé di def live kese. la may wax boo ko xeexee ci live ma def ko ci sound nga xeex ko ci sound ma def ko ci cash nga def mu kenn mënu ma arrêté dama ci am droit xëy na nag moom calculer nañ Mollah Morgun par rapport ak Ousmane Tounkara xam ni poids bokkuñu xam ni kii du ab benn muuru muuru bu toog am lu ko metti di kaas respect à Ousmane Tounkara quand même respect à lui yàlla ko yàlla génne ci lu mu ne man mola Morgun la mu décider bokol ak ñom lañu décider man ñom dañu tok fi mu don don sen aduna ñu ñoñu bu len bo len déporté yaqal len mais man <laughs> lo may déporté muy ñew man dama tok fenn awma fenn adresse awma fenn monde bi lay wër awma fenn adresse saa ma pare ñibbi awma fenn adresse nu mu mën a toog fii suba suba la mëna dagaat légui billet tamat benen dëkk benn benn at mun nga ma dégg ci junniy dëkk benn un damay dem euh, Dubaï damay jóge Sénégal dem Cap-Vert jóge Cap-Vert dem Dubaï jóge Dubaï dem Corée jóge Corée du Sud dem Japon jóge Japon dem Singapour jóge Singapour ñëwaat Corée jóge Corée dem Russie jóge Russie dem Islande du Nord jóge Islande du Nord dem France jóge wër France moom mu nekk mu dugg Suisse man noonu laay def <laughs> <laughs> adduna laay wër ñëw toogaat ak ñoom du carter bi waxtaan sama passeport feesi feesi tampon feesi tampon ci passeport aéroport bu ne am na tampon aéroport bu ne ci àdduna bi am na tampon continent bi laa wër continent bu yàlla sàkk man teg naa fa tànk continent bi continent bi muy Europe Asie Océanie amul fu benn fenn ci continent foo xam teguma fa tànk bokk maag moodu moodu bu toog comme ñoom di liggéey di daan sa doole foofu noonu am ci yaag man ma fenn je suis un artiste fu ma dem nu mu xat-xat-xat dinaa yor micro fu mu dem nu mu xat-xat-xat wax ci sama sama réew fu mu dem mu xat-xat-xat am na improvisation di freestyle di di dégg may wax bokkuma ak keneen ñoom xam nañ ban poids laay mesurer xam nañ lan moo tax ñu tegg seen tànk par rapport ak man boole ma ci liste moytuwaat tegg waat seen tànk ne noonu nañ bàyyi kii nañ bàyyi kii ok c'est vrai may naa leen ko lu tax ngeen bàyyi ma nag yéen a xam waaye buntu la woon boo xam ni mënoon naa ci jaar ngeen dugg ci man ma jaaree ci yéeg ba faw léegi nag koo xam ni moom dafa toog fii ngeen yóbbu ko day kay xaw a jafe mais man man man dem Sénégal ma neex man ay waaye boo leen ko defoon dama naan billet gratuit parce que tey même buñ ma defoon loolu man dinaa xamal ni autorité réew ba may déporté ne leen il faut ngeen suivre le dossier parce que mun leen jël doomu aadama sànni ko foo xam ni gis nga preuve yi dañ dañ ma bëgg a kil donc il faut ngeen tëj ubbi seen bët yi xool ñama woo pour déporter ma il faut ngeen xool seen bët yi parce que mun nañ ma kill comme il faut mu leer leer balaa ñu maa yóbbu ci benn dëkk ñoom dañuy assurer ni kii bu fa ñëwee kenn du ko rey kenn du ko def lii kenn du ko def lii dama leen wax xam-xam rek quoi kenn du ko def lii kenn du ko def lii kon loolu bu ma ñëwoon Sénégal mais vacances lay doon <laughs> Macky Sall daf may dóor bi parce que man mënu ma fa téye yor na ay këyit yu may demee te këyit yooyu joxuma ko donc moom mënu ko arrêté këyit yooyu moom joxuma ko këyit yu may yor di mën a dem fu ma neex loolu Macky Sall joxuma ko donk loolu mënu ko téye mënu ko nangu donc bu ma ñëwoon tey bu ma indiwoon tey vacance laay dem j'en profite sax parce que ñoom gars yi nam namm nañ ma nag ñoom nam namm nañ ma xam nga jaamari ba xam nga jotaaya xam nga ñoom du carter toog xam nga teg zëmbi yoof waxtaan ba x xam nga xandaalu wëndaalu xale yi ñëpp ak may xaar Sénégal ñëpp ak may xaar dugg biir Sandaga Mawla dugg fii génn fii benn tali teg zëmbi mais loolu billet grati nga ma doon may Macky Sall parce que dama doon assuré comme quoi que nettement comme quoi man je suis en mais réew yi dañ c'est des réew yoo xam ne c'est démocratique c'est des rew yu am liberté mais yu am droit donc duñ jël doomu aadama sanni ko nonu rek ne ko am yobul wa dekk bi nee ñew di yow da nga yow assassin nga wala yow criminel am am yobul dede di demee nonu day yomb <laughs> dañ ñuy assurer sama arrière comme quoi bu ma do la ma sàkkal do la ma do la ma do la ma kill mën nañ ma sax bolé ay garde yu ma wara garde garder en attendant ñi ma jox seen kayit nak ma assurer le nit yeen am ni yeen tamé am man gaay may bëgg a yóbbu fële pour sank ma pour sànq ma munu leen ko ci man moom man moom munu leen ko xaw ma kan ngeen ko mu man munu leen ko ci man mais da ngeen may boobaa da ngeen di anticiper sama ñëw da ngeen anticiper sama ñëw vacance bu ngan bi ngeen may may ma toog teg sëm bi naan caayin xam nga xam nga dàqante ci xale yi nekk sama aise tegale samay tànk léegi ba samay taat tàng ma Dakar sama billet dem <laughs> parce que këyit bu ma yor moomu moomu leen ko donc yàqulu leen mun leen ma yàqal man ñi ngeen di indi mooy mun amuñu këyit yooyu wala boo leen leen indee mënuñu man sama këyit dafa jeexut sama poos la ne damay foo bam neex ma ngeen indi ma fa ma nekk ah, waaw defar sama promotion ànd ak Ousmane Ousmane Sonko sax man nag ah, ci campagne am bi nekk bras droit am nekk ci campagne bi rek di ci xëpp kaani ba sama yitaa tàng ma dagg ba naan sama attaaya ba sama yaram bi fees dell ak suukar xam nga bëggee happiness ba bëggee ba nice Sénégal moo dafa ma neex xam nga fly fu mu neexee toj dugal ay sound parce que am na sound yu bëri yu ma bind dugg studio xëpp ci kaani gën a tàngal ba sama vacances jeex ma dagaar sama bien ndànk ñibbi parce que kayit bi moom doo leen ko gis kayit bi moom xam naa boo gisee da ngeen jéem a nangu mais nangu ko sax taxul ma perte ko donc man mënu leen ma xeex man moom bokkuma ci ñi ngeen di sosal di leen fenal di leen sànq man mënu leen ma sànq kooku dama leen defee yéen mënu leen ma sànq yéen gouvernement bi man mënu leen ma sànq mënu leen ko maintenant loolu amul solo comme yéen dem ngeen ba gisal seen bopp ne ah kii kat nañ ko bàyyi ba ngeen génne ma ci seen list terru xaw ma entre guillemets c'est soi-disant c'est podo terroriste ba ngeen ma ci roccee ah alhamdulilah ci yéen waaye waaye ni ma yàlla naroon dara jaal yàqal ngeen ma ko quoi na ma yàlla naroon dara jaalee yàqal ngeen ma ko